maa ngi tàllal waa loxo waa Golf Sud waa Golf Sud yëpp maa ngi leen tàllal sama loxo di wax ne yéene bi maa mën ci ñoom tey démb keroog tey laa ko gën a am ak suba yéene bi maa ci ñoom ak taxawaay bi maa ci ñoom démb donte mënuma defuma woon dara sama xol ak sama xel ak sama lépp a ngi ñoom loolu tax maa ngi tàllal ñëpp loxo maa ngi nuyu ñëpp góor jigéen mag ndaw di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci équipe ci équipe bi ma nekk coalition bi ma nekk muy Nafoore maa ngi leen di gërëm di sant ñëpp góor jigéen mag ak ndaw maa ngi nuyu ñëpp di wax ne liggéey bu commencé na maa ngi tàllal ñëpp loxo maa ngi déwénti ñëpp nag maa ngi déwénti ñëpp di ñaanal ñëpp góor jigéen mag ak ndaw maa ngi bawu ma kenn waaw di ñaan lii ñu dugg yàlla nañ ciy dugg bisimilah rahmaan rahim génn la génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin te am nañ ci yaakaar ndax nag Golf Sud lépp ci ñoom la xëy na seen cofeel ak seen mbaax xëy na ñoom la rek man defoo lu ma leen defuma dara defuma gu ma dara bokk ñoom nag ñoom seen cofeel ak seen mbaax ba fu ma jaar ñu taxaw na ma ñëwal mbàkki ñëwaatal mbàkki ñëwaatal loolu moom yaakaar naa partout fu ma fu ne ñu koy wax kon nag mbàkki duggaat na ci géew bi ñëwaat na ci euh, xëccoo bi en fas yéene ko ànd nag euh, cofee euh, soppe am di jàmm yi xarit yi bawuma kenn maa ngi tàllal ñëpp loo ku ma jàpp la nga jàpp ci te yàlla tax ñu ànd liggéey golf fa ñuy lañ lañ jotoon def golf ñu jéem a xool naka lañ koy yokkee naka la ñuy fexe ba golf dem ca gën ci ni mu ni mu woon ci commune yëpp moo rawe ko loolu loolu moo ma tax a jóg ak équipe bi mandal te bu yàlla dimbalee loolu dina kon nag maa ngi tàllal ñëpp loxo rek bawuma kenn na ñëpp jàpp ci euh, liste bii nga xam ne mooy liste bi Nafoore bi ma taxawal te fas yéene demee la nañ ci ñëpp jàpp ñu ànd liggéey golf kon coono yi nekk nekk ci golf ak naqar yi nga xam am nañ ko ci golf ah yaakaar naa su boobaa ci ndimalu yàlla loolu dina sensé incha allah kon nag maa ngi tàllal ñëpp loxo bawuma kenn nag waaw enseignant yaa ñëpp a ngi toog équipe baa ngi toog amoon naa équipe ba mu fi nekk équipe bi maamaan ba mu fi nekk ay jàmbaar lañu woon ay liggéeykat lañu woon waaye équipe bi maamaa tey sama xel daal la ci ñoom kon yàlla na yàlla boole eggali yéen yi kon nag golf maa ngi nuyu waa golf yëpp bawuma kenn di tàllal loxo ñëpp rek na ñëpp ñëw ñu ànd liggéey wax ji di loolu laa doon def bëgg mi rek di ñaan at mi nga xam ne génn nañ ci at moom daal na dema dema dem bu mu fi amati na feebar bi jeex takk ci réew si na jeex ci réew mi rawatina Golf Sud gi na fi at mi na neex lool ànd ak ndam lool nag yàlla dimbali ñu ba suñu yéene ci golf yàlla yeggale ko man golf rek moo ñor kon nag yàlla na yàlla bul dimbali kon nag euh, maa ngi nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah a wa barakatu asalaamaaleykum jërëjëf bu dëngee nag ngeen seet li

xëy na mën naa bañ a sama def-def waaye ñoom nag xarit lañ jigéen ñi samay jigéen lañ samay xarit lañ xale yi samay doom lañ sama lépp sama jabal lañ xam nañ sama yéene nag ci xamoon nañ ko xam nañ li ma taxoon ju xam nañ ko ndax maire ci goxam defe naa ne loolu nekkul lu ñuy kii ndax maire ci goxam ndax mu jegee askanam te man maag askan ñun ñëpp benn lañ woon waaw amu ci lu ci nit di xewal te waxoo ma ko ak lu man doon ba nga waxee su ma mënee teew dinaa teew su ma mun teew it dinaa yónnee ndax nit nit am na ci askan ñuy wax nee nañ yow ba nga ba nga jógee ci maire ba léegi noppi woo benn yoon di saafonte ak ñoom di leen woo guddi leen woo bëccëg ba ko bàyyi maire rek tey loolu lan moo lan lan lan moo bees ci loolu lu taxul ngay defee sax loolu yow. ba xam nga loolu li ko waral man damaa jàpp ne politique politique du nekk ne da ngay nekk da ngay nekk ba soxla askan jóg jóg jóg dem ci nit ñi déedéet loolu du politique parce que askan da ngaa war a nekk ak ñoom li ñuy dund nga di ko dund li ñuy nekk nga ne ca boo leen gisu woo leen buñ la buñ la woolee buñ la soxlaa wala jot la loolu laa jàpp ne mooy politique man politique man du ma du ma politicien yooyu xam ne si dañuy naan soxla naa nit ñi rek jokk di kërëb kërëb fu ne nga a fa déedéet du ma ñooñu man kere ba ma bàyyi politique bañ a politique ma dara kere laa gën a ma saafonte ak askan bi lu ci waaye soxla damay dem lu ma ci waaye yëgal bu ma ko yëgee damay dem même boo ma yëglu ma dégg jaar fi ne daa xew na ko damay dem ndax golf dégg dëgg yàlla euh, ngénte yi ak dëj ak mariage yi ñu tourné rek seen mbàtt si la lu tax nga laajal sa bopp noonu ci askan bi ci xew yi ngénte yeeg takk yeeg dëj yi fu ñu tourné la ba wax tey ba nga jógee ci mbedd bi ma war loolu pas-pas boobu nga am ci diggante waaw waaw waaw loolu bopp la tax lateel sa bopp ko ah, ko mooy mooy bu fekkee mu loolu def naa ko daan lateel sama bopp ndax nit waaye du ma xeebal kenn bisam fas yéene maa xeebal kenn bésam rawatina waa Golf Sud gi ma nekk dëkk ñoom ci dëkk bi xam lu ñuy lu xew bu courant coupé maa ngi ñoom lu bu ndox coupé maa ñoom lu xew maa ngi ñoom la kon defe naa ne bu bu ñu amee xew-xew du ma ne politicien la bàyyi politique tuma rek bàyyi naa loolu déedéet man noonu gisoo ma ne man du ma du ma politique taalibe googu nga wax nag dama cee juddu yàlla ci loolu laa xam mos te ah, am nañ benn suñ programme loolu ci la bokk liñ fas yéene mooy ci jàkka yi ak jumaa yi ak lépp loo xam ne lu jëm ak sut école yi seen facture ndox yi xam naa du ma ne mën naa jël lépp en charge de ndax mairie dafa am lu maata am lu maatund waaye day daa ci dugal sama loxo ba nga xam ne dugal nañ ko ci ci jàkka yi ci jumaa yi lool fa yéene naa ak ci école yi ak lépp loo xam ne war nañ ko mais war naa ca ma dugal sama léegi am na ba tey euh, parce que yóbboon nga askan bi euh, lay ñëw ku ne xam ne euh, école dugg doomu yi muy daaw mooy soxla def moyen secondaire maanaam mooy collège ak lycée yi kooku maire de la moo koy def waaye yow maire Golf maire maire askan maire Golf maire commune bu Golf bi ngay xëccoo te lépp luy école primaire muy 14 école yi fi nekk ci sa ci sa ci ci yool la nekk. Hmm. te ku ne xam ne euh, état mu ngi am lu muy def dëgg la. Hmm. mais li def dafa bari. Hmm. institution yi tenues nangam nangam. Hmm. ndax am nga yéene def subvention ci école yooyu nga xam ne le plus parent de léegi daal dina wàññeeku. waaw loolu loolu am nañ ci am nañ ci xalaat am na lu ñu ci bëgg a taxawee ndax nga xam ne jamono yi dafa xaw a métti kon defe naa ne euh, loolu moom dañ jërëjëf bi nga wax jërëjëf bi nga waxee. Euh, ndax loolu école yi dañoo fas yéene dimbali di leen subventionné euh, institution yi seen tani seen lépp luñ ci mën danañ ko def waxuñu dinañ def lépp waaye danañ leen ko gën a yombal askan wi wax na daal dañu fay ñëw pour jàppale askan wi lépp loo xam ne xaj na ci mairie baatal na ko te ñu war def ci jàppale leen ci askan danañ ko def ci mi xëy ndaw si waaw xëy ndaw yi nga wax bala nga cee man maa maa maa ci dugg bala nga cee wax mm-hmm. dañ ca am xalaat mm-hmm. tàmbali am luñ fi tàmbali woon ak fu ñuy yem fas yéene bu ñu fi ñëwee lañ ca mën a def pour jàppale ndaw ñi loolu ñu ngi suñu ne incha dinañ ko def ndax boo la ma daan def ba ma daan ba ma daan jàppale jigéen ñi ba fi nekkee di leen may ay kër ñu ko def ah, ay ay liggéey liggéey ko ay kër jigéen ñi defal naa ko inte cinq defal naa ko inte six waajoon naa pour defal golf ak sud douane fu nekk lu sud euh, ndax poche yooyu mën na maa taxaw jël ko def ko def ko neneen waaye def mu ko damaa dama ko delloo ci askan bi ndax boo dimbalee jigéen dimbale nga ndaw ñi boo dimbalee jigéen dimbale nga ay doomam dimbale nga borom këram loolu laa jublu moo tax ma def leen boo jëru nga di ma laaj demal nga xool cinq six laaj leen xool kër ya xool na la ma leen jox naka naka ko yore. ba tey ci wàllu koy informatiser. loolu xalaat nañ ci ba nañ. mi ngi xalaat bi yàlla def na ñu ma ñu ma seqal équipe bi ma àndal pare nañ ko bu yàgg lañ ca war a def lañ ca war a xalaat naka lañ ko doxalee pare nañ ko bu yàgg-yàgg loolu na seen xel di côté boobu lii am nga xam bu bu école diw bi problème am ku ne fu ne waaye di fa daanu doo am kayit juddu bi maa ngi loolu danañ ci taxaw ci ba loolu bu yàllandee loolu dina jeex fii ci commune Golf Sud incha allah bu yàlla dugalee waaw wérgu yaram hmm. xam hmm. hmm. nekk am nga loo fa jotoon yokk loolu yokk la ma doon def rek. boo loolu ko yéene yokk ko. <laughs> incha allah yokk ko rek ndax loolu dafa bokk suñu kii mooy fa santé yooyu nga wax éducation ak santé ak environnement yow li fa bokk sunu suñu suñu kii bokk léegi foofu kon nag bu ñëwee la ma ci tàmbaloon dama ko yokk waaye du ma ko wàññi waaw loolu mooy seen xel daal côté boobu maa ngi leen di gërëm baax di leen sant nag sama xol sedd na ci yéen vraiment yàlla na yàlla bool jàppale ba yéen yegg maa ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, salaamaaleykum équipe Nafoore waa Golf Sud département de Guédiawaye Ndakaaru Ndiaye Sénégal wërngal képp maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte nag bu baax tey ah ci ñi ma toogal nii muy monsieur le maire Mbacké Sylla ak euh, chargé des élections El Hadj Ibrahima toog suñu toogaay bii nag lu ko waral tey waxtaan ak askanu Golf Sud ñoom ñi nga xamante ne dañu baax am kóllëre ak ki nga xamante ne mooy le maire Mbacké Sylla te kóllëre googu li ko waral mooy maire bi fi nekkoon nekk fi ab taalibe oyof di déglu askan bi di jéeg dugg ci seen biir di xam li xew ci ñoom di bokk ak ñoom seeni bànneex di bokk ak ñoom seeni tiis kooku tey ba mandaam jeexee askan boobu ñoo volontaire waat tey ne ko yow yaa ñu fi doy kon taxawaayu meer ak candidat maire tey ci élection locale yi di 2022 loolu moo ko sabab moom yàlla def nag mu ànd ci équipe bu dynamique équipe bu jàmbaare équipe boo xamante ne macha allah ci xel ci xalaat ci expérience ak ci ambition boo xamante ne am nañ ko ci commune Golf Sud ak population Golf Sud moo tax tey le maire Mbacké la toog fii tey expliquer leen li nga xamante ne mooy yéeneem ci askan bi bu jëlee réew mi alhamdulilah bu jëlee euh, maire Golf Sud incha allah rabi yéene yi mu ci am yéene yi mu am ci population bi population Golf Sud am ko ci li nga xamante ne mooy wàllu santé dispensaires yeeg district yi am ko ci li nga xamante ne mooy école 14 école yi nga xamante ne moo nekk ci commune bi am ko ci jigéen ñi am ko ci sage yi waaye tamit am ko ci lépp loo xamante ne rek soxal na population bi ba tax na tey dañuy woote un appel solennel suñuy xarit suñuy am di jàmm suñuy mbokk suñuy soppe ne maire bii bu ngeen ko wootelee mooy faj seen saafara mooy saafara seeni soxla bu ngeen ko wootelee mooy tax ngeen am li ngeen bëgg ci biir Golf Sud ndax moom de ba mu fi jógee ba léegi ku nekk xam ne ni El Hadj Mbacké Sylla dina la woo lu toog semaine te woowu la saafonteeg yow ay xaritu démbam ñoom la téye ba léegi naam nag dañu bari delloo ko nañ ci parce que lu baax ku ko dégg ku nekk ci Mbacké la bëgg nga koo xam wala nga bëgg a jëf jëflanteeg moom ba tax na tey jataay bi ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn nafoore moom mooy listam mooy tedd liste bi nouvelle alliance des forces républicaines ñu ngi ciy woo ñëpp nag suñuy mbokk kilifa diine yi kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn nañu ñëw voté suñu list ndax maire bu baax bi toog fi maire bu am ambition toog fi maire bi nga xamante ne moo bëgg population teg fi toog fi maire bi nga xamante ne mooy jëmale askan bi kanam toog fi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di sant di leen gërëm. asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu euh, mbokku commune bu Golf Sud man seen xarit doomu ndey di kenn ci yéen Ibrahima Top. maa bëgg a waxtaan ak yéen waaye auparavant maa ngi leen di baal àq te di leen baalu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala maagale sama kàddu ba ci yéen te bu agsee ci yéen it yàlla na leen fekk ci jàmm di ko ñaanal askanu golf yëpp ma bëggoon waxtaan ak yéen rek ci ñaari baat dañoo jublu ci ay élection élection mooy sunu mbir ñun ñi ñun ñi dëkkee golf sud commune bu golf sud dëkku ñu Abidjan dëkkuñu Kaolack dëkkuñu Ndar commune bu Golf Sud gii lañ dëkk li ñuy intéressé mooy commune bi moo tax bañ xoolee candidat yi fi nekk yépp kenn ku nekk ñu déglu la may la nopp xool sa programme xool fi nga fi nga bëgg a jëmee ak san bi ci ka huit candidats yi fi nekk ñu tànn ci ki ñuy wax El Hadji Serigne Mbacké Sylla nekkoon na fi maire am lu mu fi jotoon a def amoon yéen it def lu ëpp loolu yàlla ñëw ak dogalam ñëw ay mbiram keneen wuutu ko ci ginnaawam mu des ak ngorom ak diineem dem toog defaruwaat ne woon sax day bàyyi politique dootu ci duggati ne ci commerce am nekk ci leneenam mook njabootam di dunde di dundee ñu aw ñaxam ci biir loolu askan yi bi ñu xoolee ba xoolaat ba ñaari mandat jàll fi ci ginnaawam ñu ne neexul ba neexul waaye ki fi newoon maire ñu koy wax sëriñ Mbàkke Sylla gis nañ ne boobaak léegi li mu fi defoon ba léegi moo fi ne kon kooku bu ñu ko jëlee waxte dina yokk lim mu fi naroon def yéenam dina ko mën àggale askan wi daal di def ñoo seeti ko naru ko woon sax waaye xam nga nit sa genn wàll nga moom sa benn genn wàll gi nekk say mbokk ko moom ak say am di jàmm ak say xarit ba mu demee ba ci biir waxtaan ñu ne ko ah bu doon ñu nag yow rek de doo demaat waaye gannaaw askan wi seen bopp ñoo jógal seen bopp na ñëw ñëwal ñu joxaat la nga dimbalañ ndax yaakaar yaakaar bi coow lañ ko am as gor as jullit doo tas yaakaar loolu tax mu duggaat ci ba mu ci duggaatee it bàyyiwul nit démbam yi de ku mu xamoon démb ku ne ñëw na ba ci yow naka jekk sax na moom musul tàggoo ak ñooñu kenn ku ci nekk ñëw na ba ci yow waaye nag dafa wut ñeneen ñu yees bool doole ci yokk encadrement bi yokk xam-xam bi yokk expertise bi ñooñu tey ñoo ko war ñooy kàngam yooyu ñoo ko encadré ñun ñii ñëpp ñu bokk ci ñun tam ñu nangal ko parce que ñun képp kuy euh, bëgg a jëmee golf kanam a ah, ñun dañuy lay dañ boo ñu taalee loxo dañ koy nangu ak fukki loxo loolu moo ñu boole ak moom. ci biir loolu ñu déglu ci programme am yu bari wax na ci santé wax na ci éducation wax na ci xëy ndaw yi wax na ci environnement bi bàyyiwul dara lépp loo xam ne lii. ci compétence neuf compétence transfert yi moom nee na lu ci nekk am na ci programme am na ci lu mu ci war a def ma ma junj ci tuuti rek parce que man li ma ci gën a intéressé parce que kenn umpale wu leen ne nag man maay le président départemental des parents d'élèves et d'étudiants de de Guédiawaye et de Golf Sud kon bu ma taalee loxo te man ma am lu ma war ci sama digganteeg parents ndaw parents d'élèves bi ak ndaw ñi dama yaakaar ne bu ma toogee ci wetam bu ma toogee ci maire bay nekk fa conseil municipal wala adjoint maire lu mot ci mën a doon rek dinaa fa teewal askan wi dinaa fa teewal teewal teewal parents d'élèves yi ci cadre boobu laa fa toogee. yamu ci ma ñëw mu ne ma euh, xam naa ne am nga expérience ci mbir mi damay def chargé des élections pour que ay kàngam a ngi de am na ay kàngam yu mag yu ko wër ëpp ma xam-xam ëpp ma ëpp ma expertise waaye daf ma ko njukkalee rek compte tenu de mon ak li ak sama vécu politique mu ne dina ma sagal. moo tax mu jox ma lool ma kontaan ci lool li ma ci gën a neex nee na ndaw ñi yoo xam ngeen ne euh, école élémentaire yi ñoo aju ci mairie d'arrondissement mairie commune mu ne xam na ne état mu ngi jox bopp bu nekk mille francs ci école élémentaire yi moom xam na loolu waaye nee na loolu état la comme que dafa am dafa euh, éducation dafa nekk compétence transférée bu ñëwee moom nee na 3000 francs yooyu mu def yooyu yooyu yooyu état def moom dana ci del dolli yeneen trois mille muy six mille ndax loolu quatorze école rek la koy def du Sénégal yëpp état Sénégal gépp la ko def mais moom li nga xam ne moom lañ ko dénk ci loolu rek la mën a wax yemu ci waaye nee na toilettes yi gis na ne dafa màgget dafa yàqu bloc sanitaire yi xale yi dañuy génn ci école yi dugg ci kër yi dañu naan fu ñu tuuree ndox wala fu ñu demee gànnuwaay wala fu ñu naanee ndox nee na bu soobee bu ko yàlla joxee maire bi incha allahu taala bloc yëpp quatorze école yëpp dina ko defar insha allahu taala ci kàttanu yàlla ak ndimbalu ñi koy encadré yamul ci loolu nee na incha allah kuuru école yëpp wéer na ko xool na école yëpp wala muy dugg ci lii nee na gis na ne école yi amul sax xale yi bu ñu génnee récréation fu ñu toog di feewlu naaju kese la nee na dina ko def ay garab mu wër ko bu nga xam ne xale yi bu ñu génnee daañu am fu nu feexloo mu jógee ci éducation naa dugg ci santé nee na moom nekkoon na fi maire am na lu fi defoon même ticket yi nga xam ne dañ ko daan jënd dafa defoon subvention ba nga xam ne ticket yi ku daan ku daan jëndee ticket 400 francs dañ koy ñi mu jël moitié bi moom ne ko mu ngay fay moitié moom muy fay moitié ci turu maire yi kon loolu yokkute la ku defoon loolu nag ba mu fi nekkee te booba budget tolluwul ci 200 millions wala ci la yem léegi budget maire bi ku ne xam nga ni tout ko très manqué un milliard kon ku defoon ku am lu tuuti defal la bu amee lu bari sa xel nga am yaakaar loolu bokk na ci ay programme am yemul ci loolu de nee na jumaa yi ak jàkka yi moom jullit la ci moom daara la xam ci daara la yaroo ci daara la juddoo dip ab taalibe boole ci nee na bu ko yàlla dimbalee ak jàmm insha allahu taala facture ndox yi ak courant yi boo waxul ne dina fay lépp de waaye insha allahu taala lu mu ca mën ci yanul leen ko dina ko def insha allahu taala ndax facture ndox lu mu seer seer du wees vingt mille vingt cinq mille insha allahu taala te jàkk yi xam nañ nombre bi ni mu toll loolu bokk na ci ay programme nee na ba ci mbalit yi yi ñuy tuur nee na gros mbalit mu diis mi nga xam ne euh, euh, nu ñu koy waxee UCD ñu ngi koy jël loolu ma nga jëm mbëbës waaye mbalit yu sew yi ci kër gi nee na xalaat na ne war na fi mën a def ay incinérateur def ko nag am ay place spéciale yu mu koy def yoo xam ne yi mbalit mu sew mi dootul des ci kër gi clean day bi ñu def nii fas na ci yéene dugal ci loxoom incha allahu taala euh, jigéen ñi fàttewu leen nee na ba mu fi nekkee jigéen ñëpp ci quatre zones yi fi nekk yëpp am na pàkk bu mu leen mayoon ñu tabaxal ñu tabax ñu nekkal fa seen bopp moom seen yëpp di ko di ko liggéeyal seen bopp mu jël subvention mu jox leen ñuy liggéey liggéey boobu ba léegi loolu lañ nekk tey jii nag ñu ñëpp a nga triché gis nañ leader yi kenn ku nekk yaa ngi dem ci leket yi di dugal waaye moom dañ ko ñoo fekk ko ci loolu te ba mu jógee ci mairie beeg tey jógul ci di jokkoo ak jigéen ñi di jokkoo ak ndaw yi di jokkoo ak euh, ak seen i njaboot parewul ci loolu mu ne état civil bi nga xam ne bii kayitu juddu ku ne xam nga ne dafa jafe bu ñu toll nii pour nga am kayitu foo ak usage de faux yi dañuy bari nee bu ko yàlla indee baatee ci maire bi daf koy import informatiser remettre lépp à lépp képp juddooti ci koñ koñ boo mën na juddoo bu ne dafay wut ay responsable mooy délégué de quartier yi di bàjjenu gox yi ku juddoo ci koñ bi ba mu bële sa waajur ko déclaré wul moom dina fexe ba ñooñu ànd ak say waajur fexe ba nga ñëw ci maire bi déclaré rek su ko defee day am zéro non état non koo xam ne daal kenn ku fi nekk nekk daal di nga am état bulletin de naissance loolu daal. mooy lenn li nga xam ne mën naa ko jukki ci programme bi Mbacké Sylla loolu moo ñu ñunug nag ñun ba tax ñu ànd ak moom maa ngi gërëm askanu golf yëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax ne nag man mii la def chargé des élections asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. léegi nag maa ngi leen di won euh, sunu bulletin moo nekk nii bu Nafoore nouvelle alliance des forces républicaines muy Nafoore bulletin bi bulletin bu jaune la euh, ñu kii spécimen rek la. mbind mbind mu wert nekk ci dikk bi mu muy bulletin bu jaune kooku yomb naa xàmme ngeen xool ko bu baax nga xam ne bulletin bi daal bu soobee yàlla ak yéen bu ñu yàlla yóbbu ak jàmm kuy jël na nga jël bulletin bi doo ko ci ne bu su ko defee mbàkk si la ak équipe daanu falu nekkal leen fii asalaamaaleykum aleykum rahmatulah taalaa wa barakaatu. bienvenue sur Salam Vision.